أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسابق وذريته من الشيطان الرجيم وكان سبق من الأسائل المسلك المهدون بسم الله الرحمن الرحيم فتاه وهاب يرسق يا ملكي دفت وهبليه واسقني كن آرخي أسر عاجلا بالبشر محمد الدين حتى مدينة حكما يسير يوم يتوى وحمل القنية الغراء وترب لك اسم مسكنا كسماء والأراضي وهاب يا مشاركين يا رب نسبنا أجيب وسلف منها حسن دي محمد وتحب الفاتن بقى اسمع بتاع مفتوح اسمع سلام محمد سيدنا ورحمة الله من السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñun waa Arlan dul xadim ak waa Alhayma Laqna ak fi ñu ko ma dégg rek xam naa dafa am mu dugg laaj Xaadim Mbàkke moomu di di di ngóor su góorgóorlu jéem a góorgóorlu la wallaahi laajam bii dafa am solo lool ndax daa bëgg ma waxal ko sama taarix man taarixu suluk bi sama suluk ma wax ko taarixu suluk yoon ndoga ndogaaya bu ma ci jaar lañ ci mën a wax wax ko ci loo xamante ne moo daana ko mën a jëriñoo moom ak maasam gi lu am solo la ndax jumbut su ma ko nettalee sama taarix ba dana ca gis lu dëppoog jamonoom moom ko jël loola kon kon dégg yi nimbar nimbar la waxaan di wax wala gën a bi uka misu xabiir ak expert ci dara maanaam lam ci expérience mu ci am mu jox la ko loola day gën a gàttal yoon wax gën gën ko tax da suñu saa yi waxoon ne ne ne yoon wi foo foo foo ko foo ko doge rek ko doge ca wax nag ba ko ko doge ca tëri ba waaw man rek kon bu ko wuyu ci loolu kem tu ay ci kattan la ma ci mën a nettali xam naa bi bi bi bi ma xàmmee su boobu may na ma fàtt may na ma fàttaliku fàtt fàttaliku fàttaliku gu yéeme boo xam ne jumbut xam naa am na ñu ko may ndax maa ngi seetlu keer mos naa wax ak taane nii suñ sàmbuta ñoom ak suñ farlu ñaanal suñu seex naam kër duural suñ kër googu ñaanal farlu ñoom suñ mut maamun mooy wax gaa yi ngeen kat man man de am na lu ma jaaxal mooy su ma géntee da damay xam ne man ci biir gént gi man caa man caa mën a soppandiku ci ci gént ga man caa so soppandiku suñ farlu ñoom moom daal na yàlla jëfal ñoom moom daal na man mi de danaa koy def nga xam ne kon kon may la goo xam ne kon keneen it mën na ko am fàttaliku gi laa kii lool ndax day fàttaliku ba léegi sax dana fàttaliku sax ba ba fàttaliku ak bootu nga xam ne loolu ko loolu kon mayu yàlla yàlla koy maye kon looloy njëlbeen nga soo soo soo ci génnee ca fàttaliku li ko googee gu teel a ga maanaam it musuma fàttaliku. fu ma fu ma jaxaseeg yàlla kenn fu ma ko jaawale kenn musuma ko fàttaliku ni ki ni ki ne musuma fàttaliku it sama sëriñ sëriñ ba ko dina ñoo ko doon fonk fonk musuma ko musuma ko musuma fàttaliku fu ma ko jaawale sëriñ la ñoo xam ne boobu ñoo demoon maanaam su ko ma ko jaawale doomi sëriñ Tuubaa waaw kon ku nekk daa daara ju la jox sa sa wàccuwaay xam ne li li ma fa fàttaliku mooy fenn it fu ma fu ma xatale yërmande yàlla ji ak yoonu yàlla wi waaw fati fati fati li ko moo ko it waaw loolu laa doon xam naa na na nag kama yar kama yar mooy mooy sëñ moo joor njëkk alaarif billahi gaa yi ñu nag am na yar xam ne moom moom moom moomu yar toqi ma xam naa ne loola lépp moomu la ko waaye nag danaa indi yaram lenn ci isaaratam ya waaye la da ko jiitu it mooy nag am ndey ndey ndey joo xam ne sell ga wér na mu ci fekk naa ko di ko xool mu sell la am ngërëm mu it borom këram ngërëm loo xam ne ne doy na waaw xam ne fekk naa ko maa bu xam saa xëy yor yor mu xëy ko xat-xat jukki xasidaam bi baanaa gis mu ko yor xam ne mooy xasida yooyu sañ Alaaji Daam Ture moo loon moo loon xam ne maa ngi maa ngi jot la sax ne ne sax maraaxib la ndax na na ndax bind man na ma liggéey waaye waaye waaye suñu Alaaji Daam Ture bindoon na cee it moo loon na cee it mool bu rafet ma déglu proposé ni ma amoon naa ko waaw waaw waaw loolu kon loolu loolu kon nga xam ne mooy tàmbali bi yàlla dogal ma nekk ma jóge Madina ñëw jaajëm fekk fa mag ña deseeti mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon fi Sëñ Tuubaa bu ñuy waxtaan yor yor njaareem bu ñu toogee seen géew ba bu ñu dee waxtaan dañ naan rek ku baax ka ne mu jeex amul diw ne di sëñ bi ne loole loole it waa toog fa ñoom yàlla dama may dimbali may musuma fàttaliku benn yoon laa ma sa fàttaliku ke ke gone gu ma carax ci seen jotaay ba waaw maanaam maanaam jotuma ko seetlu ndax teggin ni jotaay ba ndax boo dikkee doon nuyu da ngay da ngay rek toog sukk ci seen ginnaaw rek waaw ne ko wax na beneen la la ko gis daanaa daanaa xool ci tëriba it noonu noonu ndax picc ma tëriba ko ko romboon ne mooy tërib Saloum ba daanaa ko daanaa ko gis xool nit ñi di yéemu jotaay bi mos ak nit ñi di dox ci tëriba yooyu waaw daanaa daanaa ko baxal te xamante ne bu ñu xoolee léegi woy jur wa yar bi nga xam ne jëlee naa ko ci ci moom incha allah yàgg na boobaa ndax maa ngi ca daara ja yaakaar naa te loolu jiitu na quatre-vingt waaw jiitu na quatre-vingt jotaay ba ñu toog nii di waxtaan dëkk saa bu nawet la ñu ñu gerte mbaxal gi ñu muy attaaye ñu andi gerte mbaxal gi ma di ko ma di ma di ko xool di ko tegal mujj njëlbeen gi moom nga yàlla képp la. ñu ne ba ci àgg jëf ja neex ci sama xol ma léegi lekkatuma lekkuma may may xol li di teg di xam ne bit naa bay muuñ léegi di sama bàyyi daal di ñëw bit nit ñi ñaan ta takusaan par nit ñi ñëwee ma daal ma doon ma daal ne ma ma ma boo ko boo ko defoon yàlla doo ci am dara da daan ni cal xam ne te xam ne bu mu wax booba booba nga yàlla jeex na maa di xam maa di xam ne kon kat daal daal daal daal di tëj ji du nii waaw waaw waaw waaw waaw man nga xam ne nga xam ne tëj ji du nii ci nii ci laa ko ci laa ko tàmbalee ci laa ko xamee tëj ji du nii daal daal di ko yeesal xam ne. sama baay boobu xam ne ay jotaayam xam ne bokk na ci ay waxam yu taw xiitam yi maanaam lépp lu jëm mu far lu jëm mu mu far waaw wax ju mu yëm la ju xóot la ak man waaw nga xam ne daana daana waxtaane ne noonu nga xamante ne nekkee nag njariñ nag noonu noonu nag di di di di too too too too mag ñi gaay naa ma daga kokk waaye daal di ma gaay naa ma daga kokk am na ko xam ne sax ku ko xam ne ma toppoon moom topp leen topp ndax man ko ma topp topp ba mu fa la toppee de de naam da nga yisal da da da nga yisal da nga yisal boo gisee da dama tiit boo boo waxuma baat mi yisal lan la waaw mujj kooka for maanaam. fonk fonk fonkat ma lool mel ne daal kon sax naa ja lool lu ñu waxoon ci sell la par ma am sax ci man dëgg la ci waaw waaw bu ñu naan ma daa kooku nag ma ma sa taxaw si si si si ma bëgg si ma ma waxtaan man waaw su su su su ma gisee ma saa toog de su ma dem ñoom noonu la ko waxee de nee na nee na da nee na boo fii seen ginnaaw kon kon ca ca ca daw ña la nee na bés su ma dem di waxtaan daal daal di daal di ne bu nee bu bu nee la baax ñu ko da ngaa kokk daal daal di may geesu daal daal di geesu ne foofu foofu fekk mu foofu toogee may may si ma buy si geesu fekk mu taxee foofu mu daal di dig mooñ ma xam ne kon damay may tontu. waaw waaw loolu loolu loolu kon waaw kon ci alhamdulilah. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. ok ba tey kon ja njëriñ bi xam ne kon moom am naa fa booba sëñ Aliou Gajaga Baye Sakk Gajaga daana toog fi ñoom xam ne am na ñoom sëñ Aliou Gajaga mii ca laa jëlee baat boobu xam ne danaa koy wax. ah mos a wér di mu mu ñëw seet si ma ma bay sax ak suba teel nii laaj laaj waaw ndaje yooyu yéen dañ si si la ne ko waa ne ko nu mu def soit nu mu def mu ne ko xanaa traité de mu ne ko de da nga wér na da ngay sant yàlla dolli ca laa ko jëlee saa su ma ma ne lu ma mënatoon daal di ne wér naa waaw waaw loola jiitu nag quatre-vingt-un laa gën a ci daara ji ca laa ko jàppee ba tey jii. waaw ku am na ku ñuy wax Baye Fallou Touré xar fi si moom war boy Cissé waaw dama ko gisoon bëgg ko mu bëgg ma mu mu bëgg ma maanaam li ñuy wax dam yee ca daara jam naa ko fekk ñu nga def ma doog di ko seelaan ba fa Baye Fallou Touré daal di ñëw ma ne waaye ñu ko si moor pourtant ñëw dama boo ko gisee damay daal di jóg jëlal ko ay dallam waaye di jóg jëlal ko koy dallam mooy la ma waxoon ne ah Moustapha xanaa xamoon ni lii baaxut ci ci ca la ca ca bis boobu la ma toog ci fu ñuy defee loola ci ca la ko mujjee toogee xam ne ma daal nekk da tàmbali ñu xool Moussa di ko jinaan booba ma ma xool ko booba booba booba maa ngi jëkk a boole ci baat yi waaw ne xam baat sàngam lu mu firi ba ci des mën naa naa ko may xam. ma gis yooyee tasbihaar yooyee ca ne ma ne ma xool ko woon daal ne ah waaye sëñ bi wax lii ko ko ko ko wane sama laa nangam ko wax nangam ma ne sëñ bi ko wax ma maa ngi wax wax ak sama bopp ma ne sëñ bi wax lii waaw loolu yéem loolu daal maanaam daal li ma ni ma bëggee lu ma def tey ma gis lu sëñ bi wax moom lu lu digle waaw tey mooy nag. waaw suma dayim di suma si suma dayim di xam da xalqi mu dem si si ta ta dana si suma dayim di wala yahla wala ko rahmatu wala rahmatu si su ko ko dusum abul makki ruh yooyu daal di ko koy jël di ko def di ko def maa ngi maa maa ngi fàtt fàttaliku xam ne li ñuy wax mubashiraat yi li ma jëkk a fàttaliku ci ci mu Bachiraat yi soixante onze sama sama rakk jigéen di topp ci sama rakk Nuuru Nuuru nekk ci waajtaay ma xam ne kat kii ci waajtaay nekk woo doo du tànk laa waxee ma xam ne kii ci waajtaay nekk ba ba mu ci ëllëg sa bopp nelawee ci guddi gi xëy maanaam ma gis saa bàyyi ñëw nii ma gis ñu tàngal ci ni café noonu ci suba teel gi xam naa kon duñ ba tax walaa walaa gi sama bàyyi ne ko ana maam jaara mu ne ma ma nga ci néeg bi ab barag fa nekk akum néegub ban bara barag ba ca bàyyi njëkk da dal mbalaat ni bëreet mbaa mbaa di teg loxoom ci sam ma loxoom ma ne ko waaw xamoon naa ko de man ki keroog daa moor dara dafa rafetaay ñu ne kat ma nga ma nga ca dëj ba waaw nga xam ne bu soixante-quatorze sima sima dem sama maam jooju moo jur sama bàyyi takk maanaam suba suba suba gi may may jàng ma jàng noonu suñ ma wusil la ma yoon booba mu mel ne jooyoor bi mu mel ne dañoo dañoo jël ab film ab projecteur film teg ko ci sama loo yi may may gis suñu dem nga parce que film ba ma ngi fàttaliku sëñ Baara sëñ Baara Jóob doom jooju maanaam maanaam ma daal di ma daal di dawale sa sa sama kanam dem jëm la yor image bi bi daal mi topp ma ma dem ma dem càmmoñ ma dem topp ma xam ne nekkoon yëf yi kon nekkul ci aloo ji nan ndax boobu laa jëkk a gis su mel noonu teg ko saan ku ñuy wax suñu Moussa Sylla Moussa Sylla daal di teg ko saan yi ma nga sol turki bu weex ak caay ju ju ju ju weex waaw waaw daal di daal di waxu ni ñëw daal di ne Nour ah si Nour yow dégg nga dégg nga xabaar bi waaw waaw si si si si si ma danañ wax maanaam maanaam ci sama xel ay waay man de su ma yëgoon wax ko Nour ndax kon mu ragal ma ci waxi ko ne boobu. ñaar di dox noonu nga xamante ne ma ma ne ca sëñ Bakka Madina mu ci quatre-vingt yi quatre-vingt et un wala deux ma ma def si waat ñëw fa Madina ba dem noonu sama su waxee la man te te ngaa dem ñu wax sëñ Bakka Madina mu may la mindam ba daal di dem fu mu tukkee ne ko man de damaa soxla si min dëkk saa su ko bàyyi ba turee rek lañ nekk ma ma nga ci xaymaam ba kees ga xam ne kees ga am xayma ga ma ma ba nu ñett rek ak ak suñu borom. man ak suñ bi ak ak bàyyi bu turé mu mu mu mu baax moom ma ne ko ma ne ko sëñ bi dara bëggoon mu ne ma ah mi ngi rek daal di daal demoon ma ne ko ah su ma nee ànd ak ak baraka yi keroog laa xam ne ndekete boobu si suñu ko boobu ma na ko laaj yooya ma andi këyit mu ne ma këyit këyit bi dafa xaw a ndax bët yi maa di dem jëndee wuti aw aw aw feggub téere andi ko. mu mboolaa di ah xanaa ba di waaye daal di jël bind jox ma ca faatixe boobu ñuy def téeméer faatixe yi ñuy séddale ci ci waxtu juróom yi. daal dama nag soo ko ci mënut nga nga tàng ko té téeméer yoon ma ma ne ca loola di ca dox. yàlla dogal son bee benn mag bu bu demoon arab suite yoroon ay bagages suñ amate suñu wasil la suñ daara njëriñ jëme suñ daara suñu wasil la bëkk nekk suñu wasil la suñ daara suñ daara yu son maam la yàlla yàlla dogal ndax moom dafa ñëwoon si ndiwaar non xam nga sàmm andi naa ko fan sàmm ñu si indiwaar doon siyaare si sëñ bi téye leen fanam buur seet bi nag mu mu daal yeewu ñëpp daal daal ne ko mu daal mu daal xanaa béykat bu buur seet bi xam nekk ci tool yi waaw mu ne ko mu ne ko koy man bàq laa boo xam ne lu ci waay ji mu sax mu ne ko ko kon man ji naa ci yow daal di dafay sax moom am na sax naan ndeyam sax ba mu nelawee sax am na ñoo dem na am na ñoo ñooy diw ndax dane dane ku ku gàddaay du dëpp su su ma ma ne ay bagaasam daa dogal sunu mag jooju xam naa dem arab suite mel na ne booba xaar yi xaar yi soppiku ca ca yooya ca ca gis ni seen yàlla waaye dañu ñu def lu muy yaatu ca kër gi daal daal di ne daal di ne ne nañu max max dara sama mag nañu indi bagage daal ne suur leen ko suñ ko ma ma daal tamit ma ma bâché tamit ma tànn ma am ak daal bu boobaa gannaaw yàgg tamit lay fii ji këyit yi këyit yi mboq yàgg yeeg mbindi mag ñi nga xam booba booba booba mag ñi ni ma ma neexee ma daal di di aw fëkk fëkk fëkk sax yaakaar naa sax fëkk ñu def fëkk fëkk yan ca yan ca jërëjëf yi ndax ndax booba booba mi ngi daa taxaw daal ne kii leen ko su suul leen ko yaa di fëkk fëkk fëkk daal di kii mën na ci ca yooya suñu liw gàjjaga it moom it yàlla dogal ma sopp ma lool bëgg ma waaw bis ma ñëw ma ñëw fa ñëw fa nag mu dem wax ay ay yu bari xam ne la ma wax sax yàlla dogal na xool def na def kimtaan dama ko for mokkal wax yu bëree bëri nangam nangam nangam nangam nangam nangam ma mokkal ko waaw nekk nekk ci ca noona xamante ne fu ma gis loolu baax ak ak yu kii mën na ca moo ko déggee jël ko ci ci waaye nag booba ba tey rek maa ngi doxee noonu daanaka daanaka daanaka jëf yi dëgg dëgg li may xam gisu ku ma ku ma mën a waxal dëgg booba